mbokkee xarit yi ñi ngi am mbégte di leen dalal ci seen émission balance muy jotaay bi ngeen di amal mardi bu jot ci waxtu wile ñu ànd ak tey yéen ci beneen numéro di waxtaanee beneen thème boo xamante ne daanaka tey moom dañuy dellu ci prison yi bi nga xamante ni moom lañu tànn di waxtaanee nag benn la parmi les 37 prison yi nga xamante ni moom moo nekk Sénégal muy maison d'arrêt de Rebeuss Rebeuss nag mun na bokk ci juróom-ñetti prison yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii ci capitale bi di région de ginnaaw ñaari prison yi nekk Liberté 6 ginnaaw ba nekk ca bi xotaan ginnaaw ba nekk fële nga xamante ne moom mooy Hann ginnaaw tamit bala nga xam ne moom moo nekk biir hôpital Dantec muy pavillon spécial ak ginnaaw tamit euh, yeneen yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii ci dakaar muy juróom-ñett Rebeuss benn bokk ci benn nekk benn ci ñett juróom-ñett yooyu le ñu tànn ko tey fas ne ko waxtaane xool anam yi nga xamante ni ña nga fa nekk ci lañ fa nekkee waaye tamit xool ñan ñoo fa nekk ak lan mooy li nga xamante ni moom moo waral ñu yóbbu leen fa mbokk yi ci kaw loolu ci lañ leen fa demalaloon ci bés yu ñu génn dem am ay waxtaan boo xamante ne dañ koy séq ak ñi nga xamante ne ñoom lañ ko dénk waaye tamit euh, xool li nga xamante ni moom moo xew foofu foofule su ko defee kon ci biir waxtaan bi dina am ñetti reportage yoo xamante ni dinañ ko jàllale lépp ñu defee ko foofu nga xam ni moom mooy prison bu rëbës bi si jiitu di bees bees yi nga xamante ne am na fa coppite yi ñu fa indi ci lu jëm ci wàllum parloir li ci jëm ci wàllum visite yi maanaam nga xamante ne da nga am mbokk bu fa nekk boo ñëwee ci yan anam lañ lay dalalee ak tamit euh, ñi nga xamante ne moom mooy lekk yi ñu fay toggal détenu ci yan anam lañ koy amalee tamit euh, denc gi ci yan anam lay nekkee dinañ ci ànd ak suñu premier élément deuxième reportage bi mbokk yi dañu dugg fi nga xam ne moom la ñuy wax secteur détention maanaam fi nga xamante ni moom moo abrité chambre yi fi nga xamante ni détenu foofu lañ nekk mu am benn xew-xew boo xamante ne dafa amoon fan yi ñu génn mu doon suñu prétexte ñu demoon fa xool li nga xamante ne moom mooy aspect social bi nga xamante ne dina xew foofu loolu lépp dina génn ci jotaay bi ak waxtaan tam boo xam ni séq nañ ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko jiite di direction de l' administration pénitentiaire di kuréel gi nga xamante ni moom moo banqaasoo ci ministère de la justice di saytu lépp loo xamante ni jëm na ci kaso yi mbokk yi loolu mooy li nga xamante ni moom la ñu fas yéene waxtaan ci émission tey bi ñu ciy dalal nag ñaari ñoo xamante ne kenn ku ci nekk euh, am na ci fàll goo ci màcce goo xamante ni mën nga indi leeral bu bëree ci askan wi kenn ki ci tur Ablaye Ba lay nuyoo nekk agent de l' administration pénitentiaire à la retraite jaar ci prison yu bëree bëri bëri ci biir Sénégal rawatina bi nga xam ne moom la ñu tànn tey di ko waxtaanee muy euh, maison dara de Rebeuss monsieur Ba ñu ngi lay dalal. ñu ngi leen di fay ñu ngi nuyu auditeur yu Walfadjri yi yëpp di kontaan nag ci lii nga xam ne maanaam sama métier la am na lu bari nag lu ma ci xam xaw ma lépp mais xam naa ci lu bari loo xam ne bu ma ko waxee itam ah, dana mën a indi yeneen leeral ci boppu nit ñi ci nekki win wi ci lekk gi ci maanaam dencin wi ma yemagum foofu wala. waaw waaw yaakaar naa ni en sa qualité agent de l' administration pénitentiaire di expérience dinañu bu a baax ci lu bëri mu ni yow kon jotoon nga jaar ci prison yu bëree bëri est ce que mën nga ñu ci rek yi nga xamante ne. waaw jaar bi nga nekkee. bon fii ngay tudd nii di rëbës 77 78 laa fa jaar. après nag dem naa fu ñuy wax Vélingara ñun ci suñu jëmu bopp ñoo fa taxawaloon projet bi ñuy wax anambe muy risikol def naa Matam def naa Bambey def naa Podor ñaari yoon Vélingara ñaari yoon Kédougou Bakel Kaolack Matam foofu yëpp jaar naa fa. prison yëpp jaar nga fa. yëpp jaar naa fa ci prison yooyu ban moo la ci gën a marqué ci jaar-jaar yi. mooy bi ma mujj. mooy maanaam bi may nekk régisseur u Podor directeur prison wu Podor lii euh, def naa ko fa loo xam ne ci euh, ndigalu directeur de l'administration pénitentiaire la parce que laaj naa laaj naa ko ndigal ne dama am ay xale yu ma formé détenu yu ma formé woon à la boulangerie ñu tabax boulangerie ba pare mën a defar mburu pour mën a réinsérer seen bopp loolu def naa ko Podor moo tax moom ma ci gën a marqué jërëjëf xam naa ci biir waxtaan bi du ñàkk ne lu bëre bëri dina ci génn bu baax a baax euh, keneen koo xamante ni dañ ko fi dalal moom mooy Basirou Diop jiite jiite kuréel googu nga xam ne moom mooy PEPMAG di kuréel gi nga xamante ne ñoom ñooy taxaw mbooleem ñi nga xamante ne caab bi daf leen fete ginnaaw euh, monsieur Diop ñu ngi leen di fay Pape euh, di nuyu ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakatu maa ngi nuyu mm, suma grand suma père nuyu Pape Hmm? di nuyu Walfadjri ñëpp di nuyu aussi ñëpp di nuyu waa APMAC ak ñi nga xamante ñu invité yi toog nii. Hmm. di nuyu mboolem ku nekk si kër gi fii nii di Walfadjri di nuyu particulièrement euh, suma mbokk yi nga xamante ne ñoom la saa bi féete ginnaaw maa ngi di nuyu baax a baax a baax. di nuyu aussi hmm, administration pénitentiaire commencé par le directeur administration colonel Daour Diop maa ngi nuyu ñëpp di leen vraiment aussi sant quoi. xam nga ni bàyyi lu toll ni njóobee ku sant Jóob muy ñëw suñ plateau moom erreur weesu loolu doole <laughs> xam nga ne xam nga ñoomam jaan yow xam nga loolu yow ah, baax na loolu loolu loolu mhm. ne ko gën a xamee ci turu Rebeuss ñi ñi ko gën a xamee ci 100 mètres yaakaar naa léegi bu ñëwee ci waxtaan bi doyen sax ak ñi nga xamante ñoom lañ fi dal dinañu leeral trou 100 boobu la ko waral ñii ñi ngi koy wax PC muy prison centrale bu Rebeuss am na sax ñu koy woowee prison civile de Dakar loolu lépp euh, euh, tamit ne capacité boobu nañ koo li nga xamante euh, moom mooy phénomène surpoulement maanaam kaso yi nga xamante weesu na nit ñu waroon jël ci 30 27 prison yi daanaka 17 yi kese mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo échappé ci règle bi daanaka rëbës mun nañ jàpp ne mooy kaso bi gën a fees Sénégal en terme d'effectif leneen loo xamante ne mën nañ koo jàpp ci euh, prison bu rëbës maanaam dafa am ay particularité maanaam ay jagleel yoo xamante ne moom rek moo ko am te yeneen prison yi amuñ ko bi si jiitu mooy rëbës statu bi mu am mooy maison d'arrêt ndax Sénégal dafa bëri catégorie prison am na maison d'arrêt am maison d'arrêt et de correction am maison de correction am camp pénal rëbës nag maison d'arrêt la maanaam foo xamante ni ñi ñu àtteegul ñoom ñoo fay nekk waaye tamit mu nekk prison boo xamante ni jigéen du fa dem mineur du fa dem ku ñu atte ba pare tamit longue peine doo fa des dañ lay daal di transférer yóbbu la ci li nga xamante ne moom mooy campeno yi leneen loo xamante ne également mën nañ ko jàpp ba léegi ci taarixu rëbës moo ne jamono yi ñu wesu nguurub Sénégal jël na ab dogal boo xamante ne dañ ko bëgg toxal yóbbu ko fële nga xam ne euh, moom mooy sebi xotaan waaye mu mel ni kon am na ñetti mbir yoo xamante ne moom moo gàllankoor projet boobee ba léegi amagul bi si jiitu mooy infrastructure bi état du Sénégal moo ko moom il faut assemblée nationale pour euh, autoriser li nga xamante moom mooy koo a koo jëndee ci juróom-ñaari milliards yi nga xamante ne moom la ko nguurub Sénégal di jaayee a Sebe Xotaan euh, laata ñuy jëlee li fi ne ci effectif yóbbu ko fële loolu tamit également euh, bokk na ci li nga xamante mën nañ ko jàpp mën nañ jàpp tamit également li nga xamante moom mooy nombre de secteurs yi nga xamante nekk na fa toll ci juróom juróom-ñaar li nga xamante ni moom mooy chambre yi daal di toll ci 43 ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk nag am na ci ay sénégalais am na ci ñoo xamante ne daanaka bitim réew lañ jàpp la ñu bàyyeekoo mu ni def nañ leneen loo xamante ni bi du trouver li nga xamante moom mooy vol qualifié wala aggravé moo leen fa yóbbu muy lépp loo xamante ni dafa xeetoo ak agression ak cambriolage ak tamit li nga xamante ni euh, moom mooy euh, braquage waaye tamit wàllum vol muy sàcc gi tamit ak viol ak lépp loo xamante ni laal na ci mërs mooy li nga xamante ni mbokk yi euh, moom moo tax ñooñee nga xamante ne nekk nañ fa toll ci plus de 2500 ñu nekk foofu nga xamante euh, moom mooy euh, prison bu rëbës ci biir waxtaan bi également dinañ ñëw tamit ñi nga xamante ñoom a siñ gën ci ràññeeku dinañ ciy a xam ne moom mooy biir waxtaan bi laa bokkal plateau bi ñu am loo xamante ni dinañ ñu ko ci dolli rek ci côté taarix ginnaaw ba nga déggee ba historique bu ndaw bi nga xamante ne euh, def nañ ko ci te yaakaar c'est pas exhaustif dégg naa mbir mi Pape waaye man li ma mën a wax mooy ne rëbës particularité mooy li nga njëkk a wax mooy surpeuplement kooku moo indi malaise u prisonnier li ko gën a malaise mooy maanaam nekkin bu naqari bi mooy euh, dañ fa dugal lu ëpp lim bi fa waroon a nekk loolu nag lu ko waral nanu xoolaat population bi lan la ñuy def parce que góor gu nekk am na lu la war boo defee li la war mais dinga am lu li nga war maanaam def lu baax am lu baax def safaan bi nekk feneen parce que ñun ñëpp ñu ngi fi ay sénégalais lañu du ñu wax ne nag nous sommes des saints waaye nag pour lan demunu fa parce que dañu am lu ñu jombal suñu bopp am lu ñu njaboot goo xam ne danañu bañ ëllëg ñu xas leen ci sa definu yow parce que bu ëllëg ak jàmm bëgg nga samp kër bu dee lu bon rek nga fi nekkoon ba am ci ay doom doom jooju fu mu nar a wut jabar wala ku ko nar a wut mbokk yi waa koñ bi dañ ko ne yow xanaa xamoo fi ngay dugg loolu yëpp nit war na ko sóoraale muy maanaam dama koy faral di wax ñu ne societé nouvelle réalité nouvelle génération nouvelle mentalité nouvelle waaye nag eh, yar yar ci boppam dafa baax ku yaru sa biir kër boo génnee itam di nga yaru donc eh, ñàkk warul tax a ñànki parce que ñun am nañu gëm-gëm am nañ lu ñu gëm mais doyen surpeuplement bi nga xamante ni moom nga wax ne kan mooy responsable waa tribunal yi nga xam ne ñoom ñooy décerner mandat de dépôt également ñoom lu tax lan duñu bàyyi xel ci prison bu ci nekk ak effectif bi euh, capacité d'accueil bi nga xam ne moom lañ ko jagleel kooku d'accord naa ci ñoom rek la amul keneen parce que administration pénitentiaire musul jàpp kenn euh, euh, la magistrature maanaam man fi ma leen mën a wooyee mooy ne am na ci doomu aadama yoo xam ne def nañu infraction waaye infraction boobu war nañ leen mën a maanaam def contrôle judiciaire parce que doomu aadama bi boo ko tëjee chef de famille tëj nga famille bi yëpp bu dee kooku ko leen doon dundal amatul liggéey njabootam amatul lu leen dundal boo mën na tas maanaam man li ma doon conseil mooy koo xam ne am na responsabilité mu ngi liggéey il est domicilié domicile fixe responsable de famille war nañ ko mën a def kii kii comment dirais kii judiciaire. sauf que am na ci infraction yoo xamante ne loi bi dafa ni mën yóbbu kaso bi par force la. par force la kooku moom kenn munu koo teggi kenn mënu la teggi loi. boo ko tegee rek def nga. or la léegi yaa ngi indexé responsabilité ñi nga xam ne ñoom ñooy décerner mandat de dépôt waaye tamit euh, nit bu bu ñu bu ñu basé woo ci prison ba ñu yóbbu naa euh, bi nga xamante ni tudd nañ ko léegi ci li nga xam ne moom mooy prison bu rëbës moom mooy lu jëm ci taarix bi lan nga ñu mën doolil maa ngi nuyu ñëpp ah, comme ni ma ko wax sànq Euh, changement bi li ma si njëkk a wax mooy euh, Pape Waly je pense que yow am na rôle boo ci def quoi muy récemment bi nga demee gisal sa bopp et tout xawoon na métti autant métti woon na ci boo demande di seet nit foofu noonu actuellement di bëgg gis sa visiteur li nga ko gisee dana métti trop. Mhm. ci parloir yu sew yoo xamante ni dafa métti mais ak xañ na peut-être ak nouvelle euh, colonel bi Daouda Diop def na ci liggéey bu nga xamante ni. vraiment ñëpp teg nañ si bët quoi ok xam naa hmm? dinañ ci ak reportage bi dinañ ñëw léegi-léegi ci li nga xam moom a nekk si biir mais bu ñu ñëwee léegi ci yow min nga foofu noonu lu jëm ci wàllum secteur organisation secteur yi ak chambre yi naka la tëddee organisation secteur chambre yi comme ni nga koy waxee rek bon parce que boo duggee ci détention bi rek laata ngay yegg fi détenu fi ñu nekk am na benn secteur spécial boo xamante chambre boo xam bu nekkee sa min bi ñu amee fa ba dafa mën di dem di génn comme ni ñu ànd ak yow keroog dañ koy remercier aussi ki mu wax léegi muy colonel Blanc mhm. mu ñu jàppale si loolu léegi boo duggee actuellement mm, ci après bureau Agnès nga dugg si biir je pense que chambre une chambre deux am nañ fa boo demee premier secteur bi néeg yooyu ngay njëkk a jot mooy chambre une en face mooy chambre deux am nañ fa yàggul man ak yow le jour après boo ko weesoo tam am na benn euh, koñ bu def nii sa càmmoñ sa ndeyjoor nii sa ndeyjoor foofu mooy spécial quoi foofu mooy spécial moo la yóbbu ci secteur foofu la centre nekk bibliothèque bi nekk fa la mambal action sociale nekk maa ngi koy nuyu boo jugalee tuuti tout droit balaa nga yegg ci terrain bi tam am na beneen ruelle bu ndaw benn koñ bu ndaw foofu la chambre nekk chambre dix en plus fa la gars yi di jànge gamil quoi souvent alxuraan waaw chambre 42 43 tam nga xamante ne nekk chambre VIP la nekk na chambre yu siiw également waaw loolu loolu chambre 42 43 waaw mu ngi nekk cinquième secteur la nekk bon un booy seet sax actuellement nii léegi même ngi wax sa ay VIP mais bon ci li ma mën a parce que politiciens yooyu moom chambre 42 43 moom yàgg nañ leen fa fa lañ leen aussi tamit dañuy wax yàlla yàlla moo bindu ñëpp mais comprendre nga loolu de moo waral différent yi quoi. waaw man dama seetlu benn mbir euh, sëñ Bass. Mhm. Euh, tribunal. Mhm. détenu bu ñu fa yóbbu war a yóbbu kaso li ñu muy njëkk laaj ak mooy problème bi ñu ragal ko 9 parce que comme récemment Agnès wax na ko y a yoo xamante dañu war a corriger comprendre nga dañu war dem ñu tànc la fa mu metti mais gars ñu doy waar ñi lañ fa yóbbu la foofu pour corriger la quoi mhm. soo gisee encore selil am muy loo xamante ni mooy dernier néeg bi nga xamante ni mooy moom lañ war a yara nit su defee benn infraction ci biir kaso bi fa koy yóbbu yàlla ko fa muy selil yooyu yëpp dafa baax ci prison pour mu am neuf dix aussi am na boo xam bu leen daxal <laughs> am lu ñu tuddee ay chef de chambre yooyu naka la organisation bi demee ci biir li may njëkk a foofu mooy actuellement mm, maa leen di nuyu quoi ñoom comme ni ma ko defee sànq di ñaan ñi génn fa si kàttanu yàlla te ku fa génn aussi tamit yàlla boo fa demaat quoi te ku fa génn aussi nga am xelu expérience comme ni nga ko waxee récemment ni nga dem am na ñu bon ñoo xamante ni ñu ngi si dëkk bi demuñu fa yàlla yàlla ma yàlla bal sox yàlla moo xam ko bon comme xam nga mën nga fa dem aussi tamit tëju woon wala nga ñàkkoon xam-xam ñàkk xalaat wala nga yàqu si àdduna nga demaat defarwaat mhm. ba boo génnee amat beneen xalaat maa leen koy ñaan yàlla nañu ko yàlla defal yàlla nañu ko yàlla defal donc léegi mhm. euh, saa demee chambre chambre boo mënti dem dafa am ku ñuy wax chef de chambre foofu moo fay toog moom la ñuy dénk chambre bi le chef de cour moo koy xool jox ko ko. yan critère lay ku fa yàgg peut-être wala nga war a fa discipline ñu xam si yow yow yaay yore foofu noonu yow lu mënti am foofu noonu yaa responsable. yaa responsable bu gars yi xeexee foofu yaay fëgg bunt bi. wala nga euh, avertir garde yi ñu ngeen jël. ñu am problème dañu am pouvoir ah foofu ay xalif lañ fa de ci chambre. waaw am nañ pouvoir chambre effectivement foo dem moo la moo la sànq dem am na ko jiit am na ko jiitu quoi <laughs> foo dem am na njiit quoi waaw mais ñoom ñëpp ñoom moom chef de chambre yi ak ñële yëpp ñooy yem ah. benn lañ foofu dañ leen placé mandat dépôt placé ngeen mandat dépôt te booy yi actuellement ni maa ngi aussi tamit chef de chambre bu fa nekk aussi toog tegoo ci créé ko si yoon bu neexee bind dem audience dem ci chef de cour wax ko ne ko kii neexuñu bu ma tey dix quinze personnes da ko fay jëlee parce que lañu loolu moo kii ok bëggoon naa xam tamit nit kuy soog a ñëw prison mhm. kan mooy décider chambre bi mu war a dem moom mooy tànn wala dafa am benn responsable ci prison boo xam moo koy tànn na ko kii ngay dem fi ngay dem wax la chef de cour actuellement ki fa nekk ah, muy ibnu maa ngi koy nuyu quoi moom mooy ñëw bu bu de si bi wala procureur placé mandat dépôt ba defer may ñëw moom moo jël fiche yi mooy lire par souvent day xool nag parce que war a xool ci fee yi parce que bu dee yenn yu ndaw yi ay usage de faux wala yenn yu ndaw yi mën nañu yóbbu xam ne yenn sàmbali mais bu dee yu grave yi ay crime wala ay bonne wala ah, mhm. ay viol yu am maa ngi wax encore parce que nit ki li nga li nga wax na nekk dëgg si yow am nga gis benn affaire bu xaw a ñàng nii sax ñu yóbbu ci yenn chambre yi mais colonel bi loo xam loi yu bees ba ci même Cap Manuel bi actuellement la fa am dañu fa daan yóbbu ay nit mais léegi dafa jox ay article nit ñoo xamante ñi ñoo war dem fii ñi ñoo war dem fii ba cinquième secteur bi maanaam nit lu mu mën di def rek en fonction gravité wu délit fa lañ fa lañ fa lañ lay yóbbu fa nekk mënuñu mënuñu yemandoo ah hmm. nit ñi dafa nekk mënuñu mais selon les boo ñëwee xool xam li nga def chef de cour bi dana jël actuellement nii xam chambre ñu yóbbu jërëjëf leeral noonu am na solo bu baax a baax kon war nañu mën a ànd ak régie xool reportage bu njëkk bi muy maanaam euh, biir rëbës naka la tëddee rejet bu dee élément mi ngi en place ñu xool ko ñëwaat. jërëjëf mbokk yi loolu mooy euh, li njëkk li nga xamante ne euh, génn na ci reportage bi nga xamante ne defoon nañ leen la ko muy rek li nga xamante ne euh, fi ñu leen wan lépp nag mooy li nga xamante ne boo dugg see rek fi ngay gis ak li ngay jot laata ngay yegg fi nga xam ne moom la ñu tuddee détention maanaam fa détenu yi nekk foofu nag ci deuxième reportage bi lañ ciy ñëwee li nga xamante ne gisagum nañ ko rek muy parloir li maanaam bu fekkente ne da nga seet si sa fi nga xamante ne moom ngay toog di giseek moom ak tamit li nga xamante ne moom mooy jardin potager bi nga xamante ne que daanaka ñi ñu jàpp foofu noonu dañ leen di tàggat ci liggéey boo xam ne bu ñu génn génnee du ñu delluwaat ci li nga xamante ne moom moo mën na leen yóbbu kaso waaye tamit gis ngeen tamit également li nga xamante ne euh, moom moo am foofu noonu ci li nga xamante ne ay mbir la rek yoo xamante ne euh, am na foofu noonu kon ma ñëw ci suñu invité yi rek ñu daal di commentaire euh, reportage bi nga xamante ne jàll na ma tàmbale ko ci doyen ba jërëjëf lii ma gis ni moom dafa dal xel maanaam mëbët la bu yàgg te directrice bi fa nekk fi mu toll maanaam c'est une fierté pour l'administration pénitentiaire tagguma ko tagguma ko mais moom moo ko wane maanaam am na poigne mooy li ma li may faral di wax rek euh, inspecteur bu ñu gis ne jigéen la mais elle a le grade elle la compétence te xam na li mu war a def parce que moom xam na ne conception lay def conception mise en œuvre mise à exécution donc moom mooy jigéen bi njëkk a jiite Rebeuss également et puis c'est aussi waxuma la njëkk a jiite rëbës mais c'est la première aussi inspecteur jigéen ci administration pénitentiaire mm-hmm. ok et elle fut aussi la première contrôleur femme direct mm-hmm. donc moom moom la ñuy wane moom la ñuy wane nii moom la ñuy wane nii inspecteur Agnès Diop moom la ñuy wane nii mm-hmm. et puis ku mën a ràññee ancien la man bokk man ak sama moroom ku fa am soxla mu doxal la ok dalal la defaral ni mu waree tàgguñu ko nag parce que liggéeyam lay def mais mën nañu reconnaître ne am na idée am na poigne et elle dirige comme en tout cas man it ba fa nekkoon je ne peux pas faire mm-hmm. en tant que homme. ok mais doyen boo gisee lu mel nii yi nga xamante ni dessin yi daj amaat na yenn yi ñu tabax ko fa peinture affaire yi alors ñi ngi wax problème mu délocalisation projet boobu noonu projet la bu am boo xam ne ba léegi bàyyeeguñ ko également est-ce que kon gëm nga ni projet délocalisation Rebeuss boobu noonu lu am lu nar a am lu war a am la xaw ma nar na am xaw mais lu war a am la parce que Rebeuss rëbës mënoon nañ ko bañ a délocaliser dali koy humaniser waaw gis nga bi ñuy tabax euh, tribunal bi man ak sama bopp bu tuuti proposé woon naa ñu def tunnel à partir de rëbës mu jëm tribinal nga xam ne détenu bi dina génn dem ba ba dem jugement kenn du ko teg bët c'est humanisé danga doon def canal mu jaar ci suufu ci suufu euh, jardin bi dem directement mën na nekk du ñu sonal kenn oto du fa nekk di wéew wéew kenn du gis di leen yërëm danañ mën a dem waaw parce que tamit jamono yële ci ginnaaw gis naa image yoo xam ne day doo yaram benn auto administration pénitentiaire pan détenu bi ñu takkal leen mënut ñuy ah, dox génn tribunal dugg eh, ci prison bi loolu tamit eh, nekk na lu doy waar pourtant ñu benn canal de 100 mètres au tribunal mu jaar ci suufu jardin bi xëtt tali boobu rek dugg bi tribunal moo gënoon a moo gënoon sàmm seen dignité daal moo ah, waaw sàmm parce que comme loolu la ñuy wax humaniser les fresques là nag pour rafetal la réhumaniser wan doomu aadama yi nekk fii ne nit ñu nekk ci biti gënuñu leen mais ñoo leen gën li ñu def parce que kaso ñaara fa nekk ci def ak ki ñu jiiñ ki wax ne dañ ko jiiñ ñaar ñoo ñoo fa ne léegi ki ñu jiiñ li ñu ko jiiñ moom ak yàlla xam ne ci def nag ba ñëpp xam ne moom moo defit mais nag muñ xam ne li mu def lii mooy payam parce que bu bandi bandi doon fayeeku mais kon jeexal na xaalis parce que moo gën a yomb nekkal ci biir koñ bi ku romb nga saaga rek maire yi ne bandi nga léegi nag lii jëm ci 100 mètres maa ngi wax 100 mètres mais maison de Rebeuss. comme 100 mètres boobu noonu sax lan moo waral tur boobu noonu. 100 mètres boobu daal man dama juddu Médina fekk ko fa Médina laa juddu dégg ñuy wax 100 mètres carré. 100 que 100 mètres carré la ëppul 100 mètres xaw ma man daal 100 laa ci xamul. Mm-hmm. noonu laa juddoo fekk ko fo ba ñëw ne prison civile bi nag moom mooy tur baptême tur bi njëkk. tur bu njëkk prison civile. rëbës bi moom quartier bi mu nekk moo tudd rëbës comme nga ni ñu ne maison d'arrêt de rëbës nag am ay doomu aadama yu fa nekk yàgg fa mais nañu xool li tax yàgg fa parce que dañu ne woon temps yooyu assise benn yoon lay am ci at yow nga ñu assise démarré ñu jàpp ñu ne cinq la assise bi am mais di nga fi toog cinq balaa assise bi amaat te balaa ñu lay jàpp jàppoon ñeneen ñu war a jàll est-ce que dëkk programme ko yow loolu rek fi ne te nag promiscuité boobu ak encombrement bi ñu ngi woote waat magistrat yi ñu seet nu ñu koy doxalee parce que ñoom rek ñoo ko mën doxal ñun ma dëggal ma borom dossier yi ñun woon ñun woon ñun administration pénitentiaire mise à execution la ñuy def ñii ñooy placé ñun ñooy denc te administration pénitentiaire amul benn sañ-sañu procureur ne dencal man kii nga ne ko damaa fees xam nga nañu waxante dëgg mbëbës 1960 ba léegi mu ngi am te pourtant automatique yaa ngi dem fees na bu yàgg te dégg naa waa ji ci ci ci reportage bi mu naan est-ce que prisonnier du nit nit la foofu mooy fourrière nit fourrière nit mooy kaso bu dee fourrière xar fii lañu lay yóbbu fourrière oto ngi fii ci ginnaaw fourrière donc ku nekk boo defee li nga war a def doo dem fourrière nañu muñ xam ne ku ci nekk li nga war a am yàlla dencal na la ko bul ko njëkkante ok ok euh, sëñ Bas li nga xamante ne dégg nga li nga gis nga li nga xamante ne moom mooy reportage bi nga xamante ne euh, jàll na te ñu mm. def ko fële nga xam ne moom mooy ci rëbës jëm ci wàllum parloir yi parloir yi mooy euh, maanaam ne boo mu seetee sa mbokk mm. fi nga moom a jokkoo ak moom également ak tamit yeneen yi nga xam ne gis nga ko fa jardin potager ba mm-hmm. jardin mu gis foofu noonu gis naa fa ay tool ak ay yu mel noonu ndax foofu mën nga ñu expliquer un peu loolu lan lañ am ñoo xamante ni ay détenu confiance lañ ñoo xamante ni ñoom xool nañ leen xam ne nit ñu yar lañ te ku leen jàppale may leen sens dinañ ci mën a avancer jardin bi moo tax ñu yóbbu leen foofu ñoom pour ñu liggéey dañ fay bay ay batanse dañ fay bay ay ñambi ay soble ak yooyu yëpp souvent danañ ci jël mu participer wu ci li gars yi di xewloo foofu noonu hmm? beneen bi aussi mooy comme ni mu ko waxee sànq si soxna si muy san vraiment ñun aussi dama koy wax ne aussi tamit toujours maa ngi koy remercier bu baax a baax li wax si moom également lu am la quoi nit la jigéen la mais guerrière la liggéeykat la aussi te vraiment naa may sàcc Pape wax la au temps yi moom booy mi ngi dégg li may wax dañ daan def chaque mois ñu cotiser fay seen canal yi je pense que bi ñu koy wax sa kanam la léegi fayatuñ canal foofu noonu Agnès mooy génnee xaalisam chaque mois fayal leen chambre hmm? bu nekk dañu doon génnee cinq mille cinq mille fay léegi moom moo di fayal loolu ak leneen yoo xamante ne mu ngi ko fay def hmm. benn bi aussi mooy li nga wax si affaire wu si population bi kaso dafa nekk mbiru yàlla suñu borom bàmmeel muy armeel dafa nekk mbiru yàlla suñu borom hôpital dafa ñàkk nekk mbiru yàlla ñett yi faw am ay nit yu fa nekk mm-hmm. ala kulli alin des fois da nga waxee sànq nit nit dana toog deful dara suñu borom dugal ko fa xam pour lan yàlla bu la bëggee jéggal sa ay bàkkaar yoo xamante ne bu ko fayantu ak yow safara nga jëm des mu teg la nattu pour jéggal la mais yow ma fa dem yaay xam ba nit nga nga teewlu fa yàlla suñu borom wax naa ko récemment ne ma la dafa am ñett yoo xamante ni yàlla fa nekk kenn nëfu moment yi nga nekk sa biir yaay ak moment yi nga nekk biir bàmmeel ak moment yi nga nekk biir prison kenn na ko fa kenn ku dul yàlla boo dee nit nag nekk fa dugg si biir da nga delloo sa bopp sa xel si yàlla pour ma a ubbiwaat sa bopp léegi nag damay lancer appel di wax président de la république monsieur Macky Sall loolu ko njëkk ñaan yàlla sax day jégale maa ngi koy lancer appel comme dialogue bi ñu doon def temps yi passé def ay libération conditionnelle gëj na am mais xaw naa tane maa koy jaara ci colonel bi jaarale ko ci ministre de la justice ñu jéem a xool nan lañ mën lañ mën a jàppale am na ci ñoo xamante ni ku leen may chance dañuy dem ah. parce que surpopulation bi nii chaque moment nit ñaa ngi yokk chaque jour boo demee déferment yaa ngi am parce que nii am na ko ñuy placé mandat dépôt administration pénitentiaire boo ko joxee yoonam néew si dugal rek la mën mais xool benn benn solution solution bi mooy Euh, non seulement administration bi non seulement magistrat yi rek mais ku mel ne paa père bi nii tey jii ku ko diglu dana teg si benn code boo xamante ni boo fa jaaree rek am nañ solution maanaam agent administration pénitentiaire yi retraité seen xarañ boobu noonu ñu yóbbaale rek mën na loolu rek mën na nekk ko jël exploité ko mën na nekk ñu ànd seet peut-être mel na ñun ñun dañu wax ñun sax day mel kon suñu bopp la ñu ñu seetlu ne mhm. euh, dugg nañ ci at boo xamante ne amul mhm. euh, avril bi passé 4 avril bu jot président de la république da doon gracier ay détenus ci mhm. wàllum 4 avril korité bu amee ak tabaski bu amee ak bu duggee ci at bu bees bi waaye Euh, dañ li ñu seetlu mooy 4 avril bi passé grâce amul korité bi passé grâce amul mhm. ba ñu gëstoo xool lan moo xamante ne moom moo waral loolu dañoo gis ne dafa am ay mbuxum yu doon am ci suuf ak ñu ñu ko doon dox jox mhm. te mérité wuñ ko mhm. mais même loolu amee tamit am na ci détenu yoo xam ne am dajale nañu conditions yi ñuy laaj yëpp pour bénéficier ko est-ce que le fait que tamit joxuñ leen ko également du leen porter préjudice également bon loolu aussi posé nañu question ba la moo tax grâce amul mais ak ñun suñu pré relation ak ñi nga xamante ne xamante nañ suñu niveau eggul sax dem toog ak pour laaj ko ñu toog ak ku mel am ñu xañ leen ko tamit non non seulement pardon pardon dafa am loo xamante ni président ci boppam war na mën a toog xalaat si quoi Pape war nañ mën a def administre parcelle am na fee yoo bari nañ fii ni barke alxuraan karim war nañu mën a jéggal leen wala ñu bàyyi suñu contrôle judiciaire comme ni ko père waxee sànq ni bon sauf que rëbës ñi ñu atteegul ñoo fa ah. nekk donc ñooñu mënuñu leen bàyyi mënuñu leen bàyyi d'accord dama ne c'est-à-dire du rëbës rek rëbës rek du kaso quoi boo de gens ñu ngi foofu actuellement nii ñoo xamante ne xam ne peut-être lu def fois nga dem ba xaw a juum na benn boy bi sama doom benn boy la ko téye Thiès danañ ci jéem a dox man actuellement ni par erreur la fa nekk actuellement ni mais yëpp war nañ ci mën a xool mais fàtte dossier ak réeral dossier dutin bu ne bu caabi féete ginnaaw moom loolu moom kenn mënu koo baale moom loolu moom loolu am na càggante rek la loolu càggante gu leer nañ la moom loolu am na ay mu doonoon sa mbokk wala sa doom doo ko seetaan doyen dañuy ñëwaat ci yow léegi neen ñu wax ci maanaam li nga xam ne moom mooy euh, grâce présidentielle niñ ko nemmee ko mhm. euh, dafa am ay jalgati yoo xam ne da ci doon am ci anam yi ñu ko doon joxee moo waraloon 4 euh, avril bi passé ak Korité bi passé président de la république gracié wul mais ci kaw loolu tamit am na ci détenu yoo xam ne ñoom seen yoon nekku ci am nañu condition yëpp présenté nañ critères yëpp pour bénéficier ko est-ce que foofu également amul beneen taxawaay boo xamante ne war nañ ko mën a xoolaat. taxawaay bi daal mooy ne li ma wax sànq rek mise en œuvre évaluation laaj nga grâce bi dafa war continuer pour ñu mën a libérer des places dans la prison muy maanaam lan li nga wax noonu bon gaa ngi koy wax ne mbuxum am na ceeg lu kenn xamul mais kooku yëpp c'est vérifiable mën nañ ko vérifier vérifier bi mooy lan mooy ne dinañ envoyer Euh, liste ñi nga xam ne ils sont proposé ñu ne par exemple pavillon spécial proposé na ñii ok nga jël dossier au pavillon spécial daal di ñëw ànd ak benn magistrat ou bien le Jacques il est là. juge d'application des peines mm-hmm. mu dem xool fiche waa ji mm-hmm. que li ñu ko bindal fii est-ce que moo nekk ci fiche ba. Mm-hmm. te kooku même au niveau du tribunal war nañ ko mën a xam parce que dañu bind datu mandat dépôt ak lépp. ak lépp xool ne waa ji li ñu ko waxal fii ne il a fait vol. mais non kii drogue lañ ko jàppe ñu baare kooku mais duñ ko baare rek yem ci dañuy woo ki ko proposé on va l'entendre sur procès-verbal pourquoi il a fait ça loolu yëpp ay ay ay ay méthode de contrôle la parce que le, le contrôle n'exclut pas la confiance ni nga ko waxee léegi ñëpp ay doomu aadama lañu ok léegi affaire boobu bu amee na ñu euh, les listes yi nga xam ne c'est des proposables mais IGAJ a ngi fi l'inspection générale des ci judiciaire l'administration judiciaire mën nañ ko dox seet ñëw vérifier véracité wu liste bi bu amee ñoo xam ne ils ne remplissent les conditions et on les a mis on va appeler le responsable qui les a mis ñu proposé ñu tax région bu nekk ñu teg commission boo xamante procureur daf ciy bokk administration pénitentiaire bokk ci police gendarmerie ak bànqaas yëpp pour gën a leer anam nga xam ne moom lañ koy joxe am na ñu proposé loolu également bon kooku man mënuma ànd ci boobu. pour ok leneen li ma la bëggoon laaj doyen mooy euh, jardin potager bi nga xam ne moom la ñu gis léegi rëbës ba ñu fa demee def reportage te nga xam ne détenu dañ leen di tàggat ci wàllum euh, li nga xam ne moom mooy mbay mi comme ni ko Bassirou Diop waxee léegi dañ leen di tàggat ci ñuy bay lu jëm ci ay légumes ak ay yeneen ak yeneen ak yeneen détenus yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk rëbës parce que li ma ko maa koy wax ci tàmbali ba rëbës maison d'arrêt la maanaam mm-hmm. prison boo xam ne ñi ñu atteegul ñoo fay nekk bu ñu la mm-hmm. attee pare dañ la fay jël yóbbu la feneen ñoo ñee toog yëpp di xaar seen atte tey te ñu toog leen wala sax ñi ñu atte ba pare longue peine yeeg perpète yu mel noonu mm-hmm. bu ñu leen jëloon exploité leen yóbbu leen ci tool yi ñu béy est-ce que loolu ëppul njëriñ ñu toog di Mhm. mën nañu xaar ba yegg foofu mën nañu xaar ba yegg foofu noonu kon kon duñ daal def lu dul ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa régie ñu xoolaat reportage boobu nga xamante ne daanaka euh, ci réinsertion sociale lay wax euh, prétexte bi nag mooy benn activité culturelle boo xamante ne APEP mag daf ko organisé woon ci njiitalu Bassirou Diop mi euh, ñu àndoon ci ak moom def liggéey boobu noonu dem fa def reportage boo xamante ne activité ak sportive moo fa amoon benn làmb boo xamante ne dañ ko tëggoon ci biir détenu ñu dem amoon fekkee ko filmer ko daal di xool anam yi nga xamante ne noonu lañ koy doxalee ci biir prison bi pour que détenu ya fa nekk bañ xalaat bañ leen jàpp li nga xam ne mooy njaboot gi ni bàyyee ginnaaw bañ leen jàpp ak lépp loo xamante stress la wala traumatisme wala sax ba li nga xamante moom mooy suicide xaru comme ni nañ ko nemmee ko dinañ fi ñëw léegi ndaxte Dembo Ndiaye am na benn détenu bu xaru fa li nga xamante moom mooy prison bu Kaolack dinañ ci ñëw kon dañuy chance de de pouvoir ñëw gis ñoom li nga xamante ne la ñuy dundee également euh, li nga xamante ne moom la ñu doon euh, xalaat avant nga ñëw gis ni du loolu moom moo fi am ñu gis que dañu am joie de vivre malgré difficulté yi nga xamante ne moom la ñu nekkee ñu xaj leen seen liberté et mais mu mel ni que gëm yàlla bi moom la ñu gën a jiital ko loolu yëpp donc euh, sant yàlla bu baax. man yàlla dafa dogal ba mu fi nekkee amaana yàgg na 2011 laa fi nekkoon quoi ba 2017 bi la yàlla dogal mu jeex jàngat naa fi lu bëri quoi ndax amaana fi nekk na bërëb boo xam ne boo fi nekkee amaana bu la yàlla dimbaliwul dëgg mun nga juum nekkaat si erreur mais bu la yàlla rek diiran bu bu fiy def di nga xalaat bu baax ndax mbokk yi coono bu ñuy daj si yow waajur rek yooyu du ñu lekk du ñu naan lu ñu am daw indil la xam nga mu métti trop nag mais lépp rek sant yàlla quoi. mais nag kaso amul lu ñu si regretté parce que man ni ma gisee fii bérébu jàngat la tey lu fi gars a jàng si biti sax mënuñu ko di nekk di topp sa bakkan ba génn société bi mais tey bu la jàppee dugal la prison bu la delluwaat société bi am nga mille sens parce que fii gars yi ñoo xam lu nekk si biir biir gars yi duñu julleendoo ensemble benn sàpp la ñuy di julli bokk ndey bokk bàyyi su ma yaram dafa daw olof Ndiaye ne nit lu mu dund rek ci loolu la mun a wax nit mu gëm ko di leen ñaanal suñu borom yàlla dafa leen tawféex ñu jóge fi nekk tamit téye bi metti na yaagaay bi metti na ñu leen di ñaan tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo yor attekaay bi ñoom dimbali ñu ngir jëmi Serigne Bamba atte leen te oyofal leen yéen bi ñu jibbi seen i suñu yaram dafa daw suñu yaram dafa daw billaahi wallaahi parce que ñi fi nekk tey ñëpp suñuy mbokk lañ tey billaahi wallaahi taalaay bi ma ñëwee sama àdduna dafa tukki parce que ñi ma fawoon loolu ñëpp daanaka xaaj bi ñëpp fii laa leen fekk. dama xamul dafa. sama yaram dafa daw déjà avant muy ñëw dama dama amoon appréhension parce que je pensais que bu ma ñëwee dinaa jooy et tout mais quand je les je ñuy kaf ci foo di profiter ci journée bi à à 100 pour cent euh, dafa gën a dalal sama xel di leen ñaanal juste que fi nekk déwén mu bañ leen fekkat. tey lii nii ñëw nañ fii bëggee mais li ñuy bëggee suñu xol neexul parce que tey buñ sañoon ñoom ñëpp. nekk ñu libéré leen ñu nekk si jàmm ku nekk delluwaat say aju mais daal ñu leen di ñaanal di leen ñaanal suñu borom mi leen ko teg teggil leen te mu umb bépp doomu aadama bu ko xamul parce que li neexul ñu lay jàpp dina euh, tëj amoo liberté neexul mënul ñàkk na quoi nit ñu xoolee benn bët kii kaso la jógee mais amaana yow boo xamee sa bopp wala xam ne peut fi nga nekkoon du bon moo la fa téye woon amaana boo ñëwee de si biir société bi rek da ngay xam ne yow nit nga fa tey da nga bokk bi loolu la quoi damay ñaanaat encore une fois ñi fi nekk yàlla taxaw bu baax a baax a baax a a baax moom kaay ñu nekk ay frère Barakaas wala ñu nekk ay kaale ma si néew na am na ñàpp si nag ñoo am ne ay Barakaas violence wala fi andi mais ñu si ëpp tey ay ndaw lu ñu wax ne dañoo dugg si loo xam ne xamuñu ko mais bi ñëwee ba kasoo xam ne ne liñ dugg bu démb doon tey duñ si dugg ñu ngi koy regretté fii ñi fi nekk def kaso képp ku fi nekk def fi suñ ko bàyyee la mu defoon du ko defal ñaari yëf lañ ci jubloon biñ koy organisé ñu nekk waa APEC mag bu njëkk bi mooy won ñi nekk ci biti ñi nga xam ne dañoo ñëw tey seetaan si làmb bi won leen ne kaso bërëbu dëkkuwaay la donc lépp li nga xam ne day am ci biti war nañ ko mën a organiser fii surtout organiser li nga xam ne nag Sénégal ñu bari dañ ko bëgg muy làmb ñaareel bi mooy won suñu mbokk détenu yi nekk ci biir ne ñoom am nañu seen place donc lépp lu ñu mën a def rek pour seen nekkin si biir ak xaar bi bañ a yàgg wala ñu mën ko supporter dinañ ko def ba pare préparer leen nag nga xam ne bu wan leen ne ci dëkk bi lañ bokk te bu ñu génnee war ñu mën a duggaat ci biir société bi def lu ñu war a def sans ñu mën fi dellu si waat. ku fi nekkoon dund ak ñoom xalaat bés bu rafet bi vraiment ñëwaat euh, junjuñu ci daan nañ ko def mais vraiment moo andi initiative am ak ay dooleem xalaatam mën-mënam ak ñi mu àndal yëpp di ko gërëm di ko sant. yàgg nañ ko ñaan suñu borom di ko mëbat ba tey yàlla def ko nii ñu dugg si bisimilah rahmaan gën ci alhamdulilah rabbil alamin et que damay annoncé bi wax chaque jour ah mooy askan wi quoi souvent da nekk ci benn programme di ko teg wala nga ci nekk di ko ci am di ko ci liggéey mais ñu xam mais li liñ si bëgg rek mooy ñëpp xam lan mooy fii nii ñu fi nekk aussi tamit ñu bàyyi xel ne ñoom dañuy génn mais buñ génn ñu ñaanal suñu borom ba bañ fay ñëwaat fas yéene wat liggéey li leen wax rek euh, que ñun administration pénitentiaire def suñu kéemtalaay kàttan pour améliorer condition bi mais bu doon suñu sago li ñu mën a def mooy ñu wax leen tàggat leen ñaax leen ba nga xam ne bu ñu génnee ñu teguwaat ci yoon li nga xam ne moo leen fi indi ñu bàyyi ko mën a continuer seen dund jëriñ seen axan jëriñ seen bopp jëriñ réew mi. parents détenus itam defe naa lu ñu gis tey kenn ku ne boo ñibbee sa kër peut-être am na noo doon gisee euh, am nga beneen gis-gis ci kaso bi loolu itam rafet nañ ko bu baax a baax di leen di sant di leen di gërëm ndax ku fi nekk ci bërëb yi euh, dara soxalu la lu dul am ku la si comme munoo dem daal nit ñi war laa mën a ñëw di la fekk si ñun daal loolu rek lañ ciy jublu di ñaan mbokk détenu vraiment ñi ñëw di leen di seet si ci ndax soxla nañ ko bu baax a baax. ngeen ñëwee léegi gis ngeen ne jàmm am na ci diggante détenu yi njëkk waaye jàmm am na itam ci diggante détenu ak garde yi kon ñun dañ leen di wax rek ne seen xel dal bu baax ndax suñu yéene sax moo nekkoon kenn bañ fenn waaye nag yàlla ni muy doxale ay mbiram mooy faawu léeg-léeg nit di juum ndax yàllaa ko noonu. waaye ginnaaw bu ko yàlla bindee noonu bu juumee ba yegg si fii ñun lañu ca war rek mooy jiim fee teewal ñëpp maanaam ñun suñu teewaay fii ci béréb bi mooy fexe ba képp koo xam ne ni yegg si nga fi rek doo jooy yaay doo jooy baay ndax dinañ fexe ba fa la sa yaay ak sa baay daan féete ci fànn bi nga xam ne nii mooy baa nekkaan ci jafe-jafe ñun boo ñu fekk ñu jéem laa fa taxaw sa guys jërëjëf régi ci élément boobu la loolu mooy li nga xamante ne moom la ñu jëlee woon foofu ci biir mbir moomee ngeen gis ñu filmé ko nag làmb jooju ci biir secteur détention bi la amee war euh, fa la nga xam ni moom mooy terrain bi di dugg rek ci cadre li nga xamante ne moom mooy réinsertion sociale comme ni ko Mamballa adjudant Mamballa expliqué ci élément bi réinsertion sociale du lenn dudul ki nga xamante ne caabi daf ko féete ginnaaw ñu jàngal loo xamante ni bu génnee kaso du def loo xamante ni daf koy daal di delluwaat biir kaso muy benn waaye tamit ñaareel gi mooy Euh, ñu koy defloo wala mook muy yëngu ci loo xamante ne bu nekkee ci kaso bi du lu koy yóbbu ci xalaat boo xamante ne mën na kaa yóbbu ci xëjéem a xaru wala tamit euh, leneen li nga xamante ne euh, moom la daal di moom moo daal di am kon dañu bàyyi suñu gat yi rek ñu daal di jàngat li nga xamante ne moom mooy aspect insertion sociale bi nga xamante ne gis gis nañ ko lii moom lu rafet la lu rafet a gis la kon ñoom xam nañ ne ci senegal lañu bokk mm-hmm. te kenn mësu leen cee bi maanaam li ñu def nii activité socio éducative pour man ni ma ko jàngatee mooy c'est la réhabilitation nga fàttali doomu aadama bi nekk ci biir ne moom mën na am beneen njariñ bu dul nekk fii te nit ñi ñu ngi taxaw pour mën ko jàppale pour mu mën a génn ci loolu maanaam yaa ngi wax léegi Pape réinsertion man réinsertion ni ma ko gisee dafa gën a yaatu lii fii réhabilitation mooy te resocialiser d'abord maanaam. Euh, delloosi la ci sa nekk nu demu aadama d'abord ñu resocialiser la pour mën la réinsérer parce que réinsérer ah, nit ñi dañ koy utiliser mais moom mu nekk koo xam ne mës na nga insérer wu ci dara ñu mën la réinsérer bu dee juum nga mais koo xam ne musoo am métier musoo jàng dara lan lañ fan lañ la réinsérer naka lañ la réinsérer on a quatre réhabilité d'abord ici dañ lay réhabilité maanaam tàggat la ci benn fànn benn liggéey benn comme lii ñuy wax ni jardinage bi léegi ci biir loolu bu administration pénitentiaire comme dañu dagg seen dañu dagg Sénégal ay région pénitentiaire pour mën a gën a gaawal li mooy créer ci Irak bu nekk benn ferme IRAP mooy inspection régionale de l' administration pénitentiaire moo toogal ci région bi directeur de l' administration pénitentiaire conseiller am la à partir de la région donc ñu xool région bu nekk ñu créer fa li nga li nga xam ne man naa ko tuddee noonu ah, ferme agricole pénitentiaire à vocation professionnelle day am loo xam ne dañu fay bay ay légumes et tout ça ak euh, ay arbres fruitiers def fa ay bassin di fa yaraale jën di ko jaay projet bi boo ko defee chaque trimestre di nga jaay deux tonnes de écoute deux tonnes de poisson par mille mille francs mille francs le kilo ça va se combien dañ la jox milliard lu mu bon woon nga jël milliard bi dénk ko état ne ko maa boole sama xaalis bi dimbalee la ci budget du Sénégal. mais détenu yi fay liggéey tam xanaa dinañ leen. danañ leen fay ah mooy loolu lañuy wax pécule. danañ leen dañ leen di jàngal métier tàggat leen ci métier boobu ba pare euh, prison bi nga xam ne prison bu nekk ci région bi indi fa trente personnes mais dañuy defaraat yeneen atelier ca prison ba. pour bu génnee fii bu delloo ñeneen di ñëw moom mu mën a continuer fii def perfectionnement. ok ok doyen gis nañu ne li ñuy def nii yëpp pour li nga xam ne moom mooy réinsertion sociale terewul taux de récidive bi dafa élevé. Euh, ci rapport bi nga xamante ne rapport bi ci mujjee wax mooy bu ANSD nga xamante ne taux de récidive mi ngi koy fixé à 68 pour cent maanaam euh, téeméeri détenu nit yu duggoon kaso ba génn. téeméer yoo ci jël lu toll ci juróom-benn fukki ak juróom-ñett dañuy dellu biir prison également est-ce que loolu tamit nekkul ne luy traduire échec u réinsertion politique de parce que amul réinsertion moo amul réinsertion moo xam ne kii dugg na fi amul benn métier amul benn jàngat nga fexe ba amal ko métier boo ko amalee métier bul yem ci amal ko métier da ngay woo état du Sénégal mi ñu jabatee ñun ñëpp mu recenser des entreprises dites citoyennes am na ay entreprises Sénégal ñu jàng tàggat leen ci métier boo xam ne mën na liggéey ci entreprise boobu entreprise bi ñëw bokk ci formation bi dana ko mën a récupérer dana am ñu ci mën a récupérer mhm. et puis ñu ngi jëm ci beneen métier bu bees le pétrole et le gaz mën nañ leen woon nañu woon nit ñi ñëw former par parmi eux ci loolu bu ñu bu ñu kiyee les waa SAR et ainsi de mën leen récupérer ñu tuddee leen entreprise dite citoyenne. ok pourtant Camp pénal na cours de boo xam ne dañ leen tàggat ci ay liggéey yu bëree bëri. waaw mais est-ce que est-ce que demee biir DAP tamit am na fa. division d'insertion sociale je suis d'accord avec vous mais au niveau du ministère de la jeunesse et de l'emploi am na le forum du premier emploi pour l'étudiant mhm. pourquoi pas le forum du premier emploi pour le détenu formé. Mhm. xale yi les gardes pénitentiaires comme on les appelle moi je les appelle les agents pénitentiaires mhm. donc ñooñu am nañu qualification bu ne bu nekk la am na menuisier am na mason am na électricien am na lépp ñooñu mën nañ jàngal gars yi mais à condition que les organes de l'État ñoo bokk ci parce que prison organe d'État la képp koo xam ne da nga war a mën a bokk ci réinsertion ak réhabilitation war nga fi dugal solo loxo déjà euh, comment dirais-je observatoire national des de privation, privation de liberté war na fa mën di ñëw mais organisme boobu amul un représentant de l'administration pénitentiaire ah bon amul je défie quiconque amul amul benn pénitencier bu fa nekk. observateur national des lieux de privation. il y a un qui se dit représentant. Mhm. sur l' am na benn ko bu fa nekk. benn benn femme bu fa nekk. non secrétaire la. non secrétaire effectivement. mais quand même secrétaire la dama lay wax li may wax lu ma la. ki fa nekkoon mhm. c' était un ancien. colonel directeur de l' administration pénitentiaire un gendarme mu bëgg fa représenter administration. mënu mhm. ko représenter parce que gestion administrative rek la doon def. Mhm. il n' était pas sur le terrain. ok donc il faut qu'un agent de l' administration pénitentiaire type bokk mën a siéger foofu. fa mhm. dafay siéger gendarmerie di fa siéger léegi ñi nga xam ne ñoom ñooy privation de liberté bañ fa siéger. ok yaakaar naa ne interpellation boobu noonu dégg nañ ko ñi ko jiitee dégg nañ ko bu baax a baax euh, Bassirou mu ñëw ci yow léegi nii réaction par rapport reportage bi nga xam ne def nañ ko bés bi yaa ko waral de parce que yaa ko organisé woon ak kuréel bi nga xam ni jiitaloon nañ ko di appel mag ñu ànd ci def ci liggéey bi reportage bi dañ ciy sant yàlla rek quoi dañ ciy sant yàlla vraiment li may wax chaque jour du suñu euh, xam-xam du suñu aussi tamit peut être jàng mais suñu borom bi nga xamante ni mooy xool lu ko neex mu def ko fa ko neex xam ne peut moo ñu may bi ak xam-xam mm-hmm. lañ ci jublu rek doon lenn lu dul comme ni ko directeur waxee premièrement won waa aska wi ci biti que ni ñi nekk ci biir am na ñoo xamante ñu ngi ci biir ñun gënuñu leen quoi mooy benn ñi ci biir encore ni wan leen la parce que damay wax chaque jour xam nga li garaaw mooy yow nga jaar fa di làqatoo ko daw man jaar naa fa ah. mhm. je parle à haute voix laa toog di wax naa fa mais foofu boo fa demee bu fekkee nit nga laa wax ubbi sa xel ak sa xalaat que yow la moo tax nga ñëw fii nii man nga jum sa kayit booy liggéey wala nga juum si leneen mais yaay defaraat sa bopp bu ngeen ñëw ne keroog pour organiser leen leen ne yéen wax naa ko fa keroog ne keroog bi ma jëlee parole avant may nuyu waa observateur avant may euh, waa administration militaire ñoom laa njëkk a nuyu kan yi nañ seen bopp gëm xam ne foofu la ñu mën a seen bopp pour mën a duggaat ci askan wi li ngeen jàppale dafa bari ni père wax c'est vrai quoi dafa am loo xamante aussi tamit doole administration pénitentiaire eggu fa parce que ñuy def yëpp jël leen yëpp ay gendarme yëpp ñoom foofu la ñu mën a yem mais état Sénégal askanu Sénégal surtout ñoo xaw a mel na ku négliger affaire milieu casserole. et puis beneen problème bi sax mooy boo nekkee prison ba génn nit ñi dañ lay daw. di la moytu alors mën nga fa nekk ñu jugé la seetal la. waaw mais jombul kenn. Hmm. récemment bëgg woon tudd tudd sax. dañuy ki fi nekkoon doomu président jaar na fa. Karim Wade ki fi nekk tey yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla jël si kàttan yàlla Khalifa Sall mu ngi fa c'est le maire Dakar. parce que bañ demee keroog fa hmm? gis nañ ko fa. gis nga yàggul dara Bamba Fall mu ngi fa woon mais aussi tamit surtout ñoom ñoo ñu xamante jaar nañ fa pare xam la fa nekk war a jàppale gars yi baax a baax ñoom gën a tax may wax mën naa la may foofu tuuti hmm? yow mii nit ñi dañ la war a gërëm xam nga lan mooy gërëm bi hmm? mooy dana nga fekk ñu nekk ci lëndëm nga bëgg hmm? leen indi ci leer voilà voilà yàlla nañu woyof ba mën a yegg seen jàmm li ñuy wax nii mooy yàlla nañu président rek gis actuellement nii parce que yow li ngay développé père dafa mel ne xam nga fi ñu raisonné surtout kii nii kenn mënu ko fay ah, Pape Ndiaye volontairement lay liggéey ak li muy def nii émission bi dama waroon ñoo fay xaalis. c'est Walfadjri ah. mais fay ko dara Pam Ndiaye mu ne Pam Ndiaye mooy Walfadjri. c'est Walfadjri waay. démb dégg actuellement dama bëgg ñu xam ne détenus yi nekk fële ay professeurs la ñoo fa nekk dégg nga démb euh, DAP lu mu la wax. li muy liggéey fii yëpp du génn ci biti gaa yi koy liggéey saa boo soxla des soudeurs métalliques qualifiés ñu nga fa des menuisiers ah qualifiés ñu nga fa mécanicien qualifié ñu loo soxla ñu nga fa si biir. mais benn instant boo xamante ni yàlla nañu si yàlla gën a jàppale pourquoi pas société yi nekk fii nii fu mel ne enema damay njëkkee bëgguma tudd moom ma la prison ngeen baal ma quoi surtout mag yi quoi fu ci nekk war nañ mën dem di liggéey bu ñu demee liggéey ba peut euh, xëy suba 8 heures génn ba 16 heures 18 ñëw tëdd seen kër

digluñu ñun wallahi alazim am nañ plan boo xam ne bu ñu ko tegee war nañ ci mën a génn mooy li may wax ma ne état administration pénitentiaire réhabilitation la mën a def kenn mu leen fay réhabiliter nit ñi ba ñu mën a nekkaat ay nit ñu gëm seen bopp ne ay doomu aadama lañu kenn gënu leen ci réew mi te mën nañu tekki dara ci réew mi bu boobaa ñu woo ay partenaire ngir yàlla dëgg la société yaa ngi fi du ñu jeex ñaata jour ñooy libéré fi par ba ñaata nit par jour chaque jour cinquante mën na mën ay société comme ni ma ko waxee qu'on va les appeler des sociétés citoyennes. Mhm. ñoo xam ne dañuy jàppale ñooñu nga xam ne formé nañ leen ci biir jàppale par loolu bu amee dootul dugaat prison et puis mais loolu moo indi récidive bi et puis nañ leen jëm a bien vrai que chambre criminelle mu ngi a atte gars yi loolu mooy suñu problème gars yi ba ñu atte ba ñu atte leen lii lañ leen teg ah, mais mënoo teg nit aussi xam nga loolu xam nga loolu xam loolu la sa sa bopp teg la benn rek institution rek nga toog na dëj y' a un certain bëgg ma dul tudd ndeysaan papa bu ndaw Sambour 46 mooy sa 6 ans xam mu ngi fa 7 ans ba léegi kenn atteeku mais nit lu mu mënti def si àddina 7 ans fu mu ko toog wala 6 ans wala 5 ans war nga mën atte ne ko lii lañ la daan gars yi ba ñu atte leen teg leen daan mais xam nga lu bon dëj la fen da nga toog ne di xalaat loolu sa bopp la ñuy yàq sax xel la ñuy yàq boo génnee da ngay sax soxor prison bu Kaolack de am na détenu bu fa xaru Samba Sow hmm? nekkoon chambre 2 am bagage sama benn booy laafee moo lay mus ba tellement nii kenn xamul fu mu nekk waa Kaolack ne ko ñu lay atte waa Thiès ne ko ñu lay atte kenn xamul

te ma xam kan laa gën a contre am nañu ñàkk joma ah. jaar kaso fii nii ay homme d'affaires maa ngi du tur tur mais dugg fa xam la fa nekk soo génn suñu waraloon seetaan mais da ñëw di wax pour ñu jàppale gars yi ci benn affaire ñu am fu ñuy xalaatee est a jàppale waaw ci kaw jàppale boobu sax man dama seetlu ne jigéen ñi ah. am pa yi ñoo xam ne dañuy taxaw di battre ay xaalis ci pëjëm yi di maye lu dul jeex barke alxuraan karim war nañ mën a dugg fii laaj ñun nañ dem dimbale gars yi région de Dakar am na fi ñaari prison yoo xam ne dañ ko jagleel jigéen ñi muy maison d'arrêt pour femme bu nekk Liberté 6 ak tamit maison d'arrêt et de correction pour femme bi nekk Rufisque muy ñaari prison yi ñu jagleel jigéen ñi boo demee ci région yi tamit également am na ci quartier ci prison ya fa nekk am na quartier pour femme boo xamante euh, jigéen ñi également jigéen ñi ñu teg loxo dañoo takk lool lool lool xam naa ci yeneen jotaay dinañ ci ñëw li nga xam ne moom mooy jigéen ñi ak tamit mineurs yi nga xamante ne ànduñu ak seen xel euh, ba noppi leen euh, fii nga xamante ne moom mooy biir prison Euh, maa ngi woon léegi ci aspect réinsertion bi ba léegi doyen kon tey jii nii boo amoon ay recommandations yoo xam ne da koy formuler pour que buñ nga xam ne bu ñu ko appliquer rek réinsertion sociale des ex-détenus nekk loo xam ne lu effectif lay doon stigmatisation bi ñuy teg ci kaw ñi dugg kaso ba génn mu nekk loo xam ne tamit également luy dañ lay doon parce que ki nga xam ne dafa amoon teraangaam génn prison ñàkk liggéeyam jabaram bu gorewul dem na parce que am na ci détenu yu bëri yoo xam ne bañ duggee prison seen jabar fay na dem mm-hmm. say doom école yi nañ leen loolu également métti sa kër gu tas lay doon maanaam léegi danga wax ci biir jigéen ñi foofu dafa am benn affaire rek boo xam ne dama ko yàgg jooy ba retraité mooy ne dafa am fii prison wu mineur mais pour góor ñu ne dañu bañ xale yu góor yi di donc dankaafoo mag yu bandi yi bi nekk am ex forbe ñu bañ jël mineur yi yóbbu ci kaso yu mat yi mais fii ci jigéen ñi mineurs yeeg majeurs yi la ñuy boole te am na ay kàndingu jigéen yu nekk ci biir mën nañ leen endoctriner li ñu doon bañal góor yi nañ ko bañal jigéen ñi kooku benn affaire la beneen affaire mm-hmm. mais ci réinsertion bi ngay wax ni man daal sama gis-gis bi gàtt na gudd na mooy ne administration pénitentiaire mënul def lépp mm-hmm. administration pénitentiaire dafa nekk benn service boo xam ne étatique la tënku dafa tënku parce que dañu limiter ay moyens mm-hmm. limiter ay zone d'action ok administration pénitentiaire nee nañu moom moo war a mettre des moo mën a créer ay conditions de réinsertion mais est-ce que condition yooyu jox nañ ko ko point d'interrogation ñun def nañ si fanweeri ak juróom ak lu topp ok dem nañu ba créer service socio-éducatif ñoom nga liggéeyandoon ok voilà service socio-éducatif boobu pour lan la woon c'est pour quand même réhabiliter réhabilitation xam nga mooy lan mooy ku dem ba fàtte ne moom nit la nit ñi ci biti tegatuñ ko muy nit nga delloo si ko ci boppam loolu mooy réhabilitation foofu la liggéeyu administration mën a administration pénitentiaire mën a yem ci fi mu ñu tollagum nii ak li ñu ko jox sañ-sañ bi ñu ko jox ci réhabilitation réhabilitation nag réinsertion moo ci war a toll moo ci war a topp réhabilité nga nit ki dem nga ba xam ne kii kat xabaat na boppam mooy kan doomu aadama mais ngir yàlla loolu yomb na yomb na état pour créer ay ay ay ay ay ay ay FAP comme comme ni ma ko tuddee man noonu laa ko bindee. ferme agricole pénitentiaire à vocation professionnelle. day am ay atelier am ay fu ñuy yaree jën am culture à grande échelle. région bu nekk mën na ko am prison bu nga xam ne mu ngi miroité ci biir kii bi indi fa 30. di nga am place 30 places de libéré. Mhm. ok mais nga defar ay atelier foofu perfectionnement bi bu waaj a dellusee ñeneen di ñëw moom muy perfectionné wu foofu. Mhm, mhm. bu boobaa ministère de la jeunesse et de l' emploi. dañuy créer dégg nga chaque année ñu def euh, forum du premier emploi de l' étudiant premier premier emploi pour non, les diplômés mais pour, mais diplôme liggéey boo demee États-Unis duñu la laaj diplôme de quest que tu sais quest ok ok mhm. ñooñu bu ñu leen defalee loolu former comme ni ma ko waxee sànq les entreprises dites citoyennes répertoriées par l'État du Sénégal bu leen mën a jox sax as tuut pour ñu mën a ñëw bokk ci liy former gars yi man lii laa sama entreprise lii la soxla damay former nangam. Mhm. bu ñu paree maa leen di jël. Mhm. mais nga xool ndax ndax kooku dina résiduer. du ok yaakaar naa ni interpellation boobu dégg nañ ko bu baax a baax euh, gis ngeen ne plateau bi administration pénitentiaire teewuñu fi maanaam euh, dañoo demoon am ak ñoom interview maanaam sëq ak ñoom waxtaan boo xamante mhm. euh, doxoon na suñu diggante ak nga xam ne moom moo jiite direction de l' administration muy DAP la justice di saytu lépp lu ko jiite di colonel Daouda Diop am na waxtaan boo xamante ne sëqoon nañ ko ak moom moom waaye tamit euh, fële nga xam ne moom mooy rëbës également am na waxtaan boo xamante ne nañ ko ak ñi nga xamante ñoom ñoo yor euh, mbir yi foofu noonu lu ci mel ni ñoom Seynabou ak lu ci mel ni euh, également lu jëm ci wàllum social beeg lu mel noonu chef de cour ak ñoom ñëpp ñu kon ñu ànd ak waa régie rek xool ñu dajaleel ñu éléments yu extra yooyu ñu boole ko déglu ko laata ñuy dellusiwaat ci plateau bi scanner boo xam ne moo fi ne nga xam ne bu ñëw balaa muy dugg mbaa visiteur bool yi dañuy jaar ci scanner matériel boo xam ne mën na indi problème ci biir comme ay couteau mbaa ay loo xam ne c'est pointu machine bi da koy détecté les visiteurs aussi dañuy jaar ci portique bi nga xam ne aussi boo fa jaaree loo yor ci loo xam ne daal weñ la da koy signalé. temps yi dañoo indi benn système bu bees mooy système informatisation ñu koy woowee SIGDAP euh, système intégré de gestion euh, de la direction de l'administration pénitentiaire parce que gis nañu auparavant dafa manuel woon dañ doon jël ay registre di jël ay fiches mais actuellement avec l'informatique et les machines données yooyu yëpp foofu lañ ko def léegi foofu lañ ko def léegi facilité na recherche bi buñ dugalee identification bi yëpp dañuy photo waa ji buñ ko photee buñ ko photo ba pare jël ay empreinte am léegi day tax ba récidivisme bi maintenant day xaw a wàññeeku boo ñëwoon ci tur bi beneen yoon nga ñëwaat ci beneen tur il suffit que nga dugal sa empreinte rek da lay ne kii noo bi mu njëkkoon a ñëwee mooy noom côté alimentation détenu yi amélioré na wu bu baax parce que sànq gis ngeen añi nu mu mel par rapport ak ni ngeen ko doon déggee mais comme tey ñëw ngeen ba gisal seen bopp vraiment euh, xam ngeen ne y euh, changement euh, am na benn chambre froide bu bees bu ñu defar boo xam ne capacité bi 22 mètres cubes la mun na conserver aliments yi dans de condition di d'hygiène loolu nekkoon na ay jafe-jafe mais bés ni tey dañ na fi également aussi toujours si amélioration condition de détention yi ci biir chambre yi am nañ ay système euh, d'extracteur d'air pour vraiment permettre détenus yi ñu atténuer tàngoor bi am si biir donc léegi daal vraiment des conditions sont améliorées am na des télés pour leur information les chambres on été carrelées avec avec des toilettes euh, décentes euh, si côté réinsertion sociale bi tamit directeur bi wax na ko ñu ngi woon tout à l'heure au quartier spécial gis ngeen foofu bibliothèque bi ak euh, télécentre bi ak atelier d'art yi menuiserie couture tailleur Parfois, il est tard, nous gagnons réfectionner. C'est pour on peut respecter beaucoup plus euh, la dignité humaine, mais mettre tout le monde dans de bonnes conditions de vie, muy personnel, muy population carcérale. ndax boo gisee euh, le personnel yaakaar naa ne ñoom itam euh, ñoo gën a bëgg parloir yi que détenu yi ndax itam il s'y retrouve vraiment bien il si retrouve vraiment bien. ñu ko sañoon kenn ku ne nga war a mun a ñëw nekk ak sa mbokk ni nga nekkee moom sa kër mais loolu mënta ne ndax tu es de mais n'empêche aussi war nañu luñ ci mën rek lu ko gën a oyofal ñu oyofal ko loolu daal mooy suñu mbëbët loolu rek lañ ci jublu mais amul leneen. boo gisee jardin bi du lu ñuy jaay du ci ut xaalis dañ koo def pour au moins permettre leen ñu mën a réinsérer wu buñ génnee du bu ñu leen di jàngal la plupart du temps dañoo ñëwoon ak lu néew ñoo ñëw fii rek di renforcer di gën a perfectionner wu. muy artistes yi muy ñëpp ndax gis nga li ñuy def ci biti xalaatuñu woon ne Doteni mun na ko defar te ñoom defar nañ ko tey Sénégal yëpp teg na ci bët vraiment loolu di lu rafet di lu baax ndax euh, bu ñu amee xalaat bi itam am moyen yi li tax mu concret ba ñëpp di ko gis tey ñoom la ñu xam ne même en étant en prison ils sont toujours des membres à part entière de la société loolu laa jóg ñu gëmaat seen bopp xam ne itam ay ay nit lañu on lance un appel à tout le muy personnel muy muy partenaire muy état on lance un appel à parce que y a beaucoup à faire beaucoup a été fait mais y a beaucoup à faire encore pour visiter ko foog mu dem ci juge bi wala magistrat bi yor dossier bi mu defal ko permis de communiquer bu dee ku ñu condamné muy xaar kooku jàpp bi moo koy defal bu ñëwee nag aussi am na ay tableau ñu def ci buntu kaso bi ñaari buntu yëpp détenu bu ne benn jour nga am pour visiter boo ñëwee nga xool suivant néeg bu mu dëkk ban jour lay nga ñëw boo ñëwee jour boobu aux heures indiquées di nga ko xool di nga ko gis di leen lancer appel ñoom ñëpp muy fii muy euh, toutes les prison du Sénégal mu ñalante rek ak dawal yërmande agent bi bu dawalee yërmande ci détenu bi détenu bi dawal yërmande ci ñoom vraiment jàmm rek la am loolu rek moo fi mën a am ndax bërët yi dañoo xat jërëjëf ñi ngi jaajëfal bu baax a baax euh, colonel Daouda Diop directeur de l' administration di jaajëfal bu baax a baax inspecteur Agnès Ndiogoy directrice de la maison d' arrêt de Rebeuss ak collaborateur yi nga xamante ne euh, yombalal nañu reportage yooyee euh, kon mu mel ni kon am nañu quelques intervention yoo xam ne bëgg nañ ko jël ci public bi rek dolli seen xel ak seen xalaat ci mbooleem li nga xamante ne waxtaane nañ ko fi tàmbali ko ki nga xamante ni moom mooy agent Nal Dieye nekk régisseur de prison à la retraite bokk tam ci arab su muy association des mu am ay yoo xamante ne rek daf ko ciy sànni bisimilah rahmaani rahiim euh, maa ngi nuyu d'abord suñu directeur de l'administration pénitentiaire bi fi nekk di nuyu collaborateurs yi muy inspecteurs yi fa nekk ak moom euh, man nag euh, suma kàddu presque day mel ni répétition la parce que demoon naa fi Sénégal ca kanam en 2015 wax fa affaire construction d'établissement pénitentiaire parce que dafa mel ni problème administration pénitentiaire dañ koy passer toujours à côté euh, dañu may problème dañ ko mettre en rade ndax gis nga administration pénitentiaire kenn mënu ko defar te tabaxoo ay kaso yokk personnel bi waaw mais dama gis depuis ñuy wax problème mu administration pénitentiaire mais waxu waxu tabax kaso bon am na aussi euh, lu ma bëgg a rectifier ci intervenant yi passé euh, yi wax sànq maanaam damay dégg chaque fois ñuy wax affaire localisation Rebeuss mais man je ne suis pas pour il a beaucoup de raisons benn Rebeuss ni mu jegee palais de justice amul lu ko mën a remplacer suñ ko toxalee voilà feesaay bi kañ moo ci jaaxal nañu waaw mais feesaay bi mooy li ma leen wax nañu tabax ay kaso nañu ay kaso euh, Euh, soo xoolee Pikine am na ay am na am na tribunal waay am na tribunal ñoom tribunal benn tribunal moo rassemblé ñaari kii yëpp mais Pikine amul amul amul euh, établissement pénitentiaire ku ñu jàpp Pikine dañ lay rëbës te loolu du yoon déjà su am na mos naa na waxtaan benn inspecteur ñu Saliou Fall mu ne ma soo demee nga xool euh, rëbës effectif bi la majorité ci banlieue bi lañ jóge kay jam ñaaño ba Dakar. waaw mais loolu la man yàgg naa ko di ko jooytu gis nga euh, euh, administration pénitentiaire ñu régler problème yi te tabaxuñu ay kaso yokk personnel bi waaw Rebeuss nag li tax ma ne buñ ko fa dindi y a beaucoup de raisons mais la raison est simple Rebeuss déjà jege na jege na euh, palais de justice voilà jege na ko trop d'ailleurs sax suma collègue bii di wax ablaay Ba nee na moom lañ def canalisation mais man su doon man la suma xalaat mooy ñu toj rëbëx def ko en hauteur ci suuf ñu def fa tribunal d'instruction nga xam ne kenn dootul jël nit du ko yóbbu tribunal instruction bi ci suuf lañ koy defee loolu moo gën a gaaw ñun les problèmes yi koy régler lépp mu ngi fi mais li tax bëgguñ ko def en œuvre ok ok jërëjëf doyen technicien bi ñoo may xamal ni rek euh, li nga xamante ni moom moo des ci waxtu wi daanaka euh, néew na lool euh, su ko defee kon dañuy daal di jël beneen intervention ci public bi rek ki nga xamante ni moom mooy Abdou Aziz Thiam moom tamit mu sànni ci ay kàddu. salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum yéen ñi ma bokkal bi ku ci maa ngi leen ak sa sant. man tax sama wax du ci bari li may wax mooy ñu wa ñi nga xam ne si nit ñi nga xam dañoo nekk réew mi nekk ci ay mbir mës a jaar rëbës wala mës a jaar fenn te jéemuñu leen a jàppale. jamono yi dafa yàqu ba léegi nit ñi li xewal mooy puukare bët pour ñu jàppale nit ki il faut nga taxaw télévision taxaw wala mbooloo taxaw ñu jàpp loolu dañ ko war a génne suñ biir. gis nañ fi ay nit ñoo xam ne si ñëwoon nañ jéem a bokk si mouvement bi affilié wu waxtaan ak ñu ñu proposé leen ay propos yu clair ñu ne waaw ñu dem ba ci biir gistuñ leen déggatuñ leen ci dara ci li leen dégg mooy ci puukare ay dem extérieur di fa def ay financement ay financé ay ndogu ay kër ay deux millions nga jox ko ndogu ci kër loolu ak quoi ça sert am na ñoo xam ne si fii ay gis nga dëttu ñu nañu waxtaan nit la te jombul kenn ndax yàlla moo jël li ko neex def ci ko neex saa suñu ko mm. neexee la ko ci def te kenn du ko laaj lu tax nga def loolu mm-hmm. loolu suñu borom rek moo ko mën gis nga détenu ba nekk fële na le kenn gënu ko kenn nit la nit nag day juum nit day def erreur tamit nit tamit day tooñ mm-hmm. ki tooñ na xam ne moo tooñ ki juum ñu xam dafa juum mais ne leen wëlbati ko xoolaat utiliser suñu xel yi jéem leen a jàppale ci ci wu ci sa ci fànn wu leen jéem leen ci jàppale nag mm-hmm. xool lu jàppale comme ni ngay def Pape Ndiaye mënoon nga ni journaliste laa rek ah dama def sama métier mais gis nañ euh, événement bi passé ni nga ci taxawoo bi événement passé tamit gis nañ ni nga ci jàppee ni ku baax noonu lay doxee waaye du ma jàpp que ni ah kii ko dafa ah, bon la kaso yaa ngi fay fekk genre bu ne nag ku ne yaa ngi ko fay fekk te bu génnee tamit également pour ñu duggaat ci société bi day métti parce que dañ la am bët leen di xoolee dafa am lu lay xoole dafa am lu lay xoole loolu nag ku amul xam-xam ku utiliser sa xel mooy def loolu ndax gis nga boo demee ba biir rëbës boo fa demee da nga fekk xeet wu ne mhm. ñi baax lool lool lool ña nga fa mais ñi bon lool lool tam ña nga fa ña nga fa da nga fay dugg jàng kaamil wàcc musoo fer musoo dal ijji foofu nga koy dalee ba ba wàcc alxuraan bi rëbës fajar ngay jóg julli ñoo xam dañoo baax lool mm-hmm. am na ñoo xam ne si ña nga fa dañ dañuy kenn maanaam nu mu la wax sax lañ fa nekkee mm-hmm. moo wax la benn exemple am na koo xam si man ak bas mi ñoo dem bureau kilifa gu mag a mag di ko proposer mu jàpp ci détenu yi di leen jàppale bi nga wax daf ñuy entendre trois à trois reprises ñu dem fa dañuy rang. ma ni bas ñun du man man Aziz man du ma yalwaan ngir jàppale nit duma ko def du ma leen saraxu. kaay leen ñu baax nag naa ci wax nit ki. keroog bi ñu demee 100 mètres fa lañ ko fekk. ma téye ci loxo bi ni ko. yaa ngi fàttaliku fan yii waaye su bu ñu doon ñëw sa bureau. di la wax lii. gëma woon lii dina am tey. xamoo woon tamit naa def fekk tey heure bi te dama la fi bàyyiwaat. te kilifa gu mag nga mhm. li la fi indi nag moo fi indi sa morom li la fi indi moo fi indi keneen mhm. mu ne man je ne savais même waa am na ñeneen ñoo xam si ñu ci dëkk bii nii ci dëkk bi lañ nekk mhm. jaar fa jaar nañ fa biñ génnee yàggul am na ñoo xam bañ génnee yàgg na ay responsable lañ mais nañ geesu ñu nekk ci ci ci yi duñ ñu bon man bi doxee dama faa def te la ma fa yóbbu ñëpp xam nañ du lu bonuma def ma lu ñaaw waxuma lu ñaaw te dem naa fa keneen ak keneen ak keneen ok ok jërëjëf yàlla bu naree bu naree defar. day mel na ko yàq sama nijaay. a ah, caam cest sa sant bi rek moo xaw a doy waar waaye dama bëgg a won ñooñu ne. ku lay daw bu ma la yoree lay bor. di la nëbbatu ba su moo la fayee mën naa taxaw jàkkaarloog yow. Mhm. bor la woon ci société bi fay nañ ko. mooy tëdd kaso bi ba jeex lool la la société bi doon toppee mhm. mais boo dellu see na la société bi ubbi laat buntu bi pour nga mën a feex ngir yàlla loolu ok ok jërëjëf jërëjëf doyen ñi ngi remercier suñu ñaari intervenant yi wax dëgg yàlla sàkkoon nañ dolli ci ñeneen ak ñeneen waaye temps bi moom moo xaw a cat rek parce que technicien ñi ngi may xamal ni euh, daanaka waxtu bi ñu cërale woon euh, dafa daal di mat sëkk di dellu ci suñu invité rek kenn ku nekk ñu jox ko kaddu gi mu tàggatoo ah non man maa ngi waaw asalaamaaleykum maa ngi delluwaat di nuyu di gën a euh, jaajëfal daaw Daouda Diop ak staffam mhm. ah, fi mu teg tànkam rafet na mhm. ñun nekkatuñu fi mais dama waxoon benn wax ne nous sommes en retrait de la vie active mu ne non mhm. vous êtes là-dedans donc comme dugal nañu ci biir ñun suñu tànk ngi ci biir suñu làmmiñ ngi ci biir suñu te ñun lu doxal administration rek moo ñu moo ñu ñor tey fu ma toog sama grand place ñu ne ma booy fi kër gaa ngi tàkk lan laay wax bu ma mënul défendre man leen non retraité naa kooku c'est trop facile mooy maa ngi jéggalu bi nekk ci réew du ma jéggalu man fu ma toll war naa mën a défendre sama administration te colonel bi ñu ngi koy ñu ngi koy jaajëfal yow naka pek la a APMAC APMAC li ngay def yàlla na ko sunu borom furle fukki yoon barke sëñ Touba santam bi war na ko changé nag war na ko soppi <laughs> def euh, Njaay nag moom mu ngi ci tali boo demee rek <laughs> mbir mi Daouda Diop ak staffam mhm. ñu ngi koy gën a sant di ko mhm. gën a ñaax mhm. te ñun ñu ngi jàpp de fu mu nu soxlaa ñu taxaw parce que ñun amuñu lu dul administration pénitentiaire nous avons été recrutés pour nous avons travaillé pour et nous restons toujours pour parce que bañ nañ ko ba ARAPS lañ tudd. Mhm. les agents retraités la l' administration pénitentiaire. Mhm. que ñoom buñ ñu retraité nañ ñu xëccaat. ok mhm. loolu rek la ñuy ñaan. ok ok jërëjëf euh, kon euh, Bassirou oh. Diop ñu bàyyi la kàddu gi yow it. dañuy dañuy santaat quoi na pare maa ngi gërëm père vraiment sax xam naa incha allah père on va faire beaucoup de choses si kàttanu yàlla ah. bon colonel moom dama ko gërëm ba du ma waxal sax dama koy ñaax comme li ma ko dem pap pap rek nee naa ko bu del nangu sax ñu lay xeer mais liggéey rek liggéey moom bokkut ak wax quoi. beneen bi aussi ñu ngi sant vraiment ñëpp détenu yu Sénégal yëpp waa Rebeuss surtout Agnès aussi moo ko waxee wax naa administration bi nekk fii nii Rebeuss maa ngi sant aussi vraiment di sant suma ay xarit yoo xam ne dañu ma jàppale quoi sérieusement commençant par su ma waxul turam sax dañu ko xam sama xarit benn bakkat Basirou Diop ak seen Pape Alé Diop vraiment ñu ngi nii dafa bàyyi sax mënuma lim tuuti Ndiaye Mbaara Kan ñun ñëpp maa ngi di sant bastal bi nga xam ne détenu la woon foofu noonu actuellement jaar fa jàppalam bu baax a baax boole maag Matar Ndiaye bari nañ quoi ku a defaat le 24 <laughs> <laughs> mag moom bokkoon na ci ne ñoom la ñu daloon ci waxtaan bi ak euh, nañ la ko fële nga xam moom mooy maison d'arrêt de Rebeuss bañ fa demee nag fekk nañ fa détenu yu bare bari gis nañ fa maire de Dakar Khalifa Sall gis nañ fa également ki nga xamante moom mooy euh, Samba Sow ci prison boobu la nekk muy ki nga xam ne moom la jiiñ ne moom moo faat euh, Fatoumata Mokhtar Ndiaye ngañcaam bi nga xamante moom la jiiñ ne moo rayoon Baye Fall fii ci buntu Walfadjri également fekk nañ ko fa ak yeneen ak yeneen détenu yoo xamante ne fa nekk mhm. mbokk yi loolu mooy li nga xamante moom la cëraloon ci waxtu wi di gërëm bu baax a baax technicien bi équipe section de l' administration pénitentiaire bi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jox autorisation yombalal ñu reportage bi nga xam ne def nañ ko ci njëtalu colonel Daouda Diop ak tamit inspecteur Agnès Ndiogoy bi nga xamante euh, moom moo jiite maison d'arrêt bu Rebeuss muy séeréer bu bëgg cere bëgg mburu bëgg ceeb mm-hmm. mbokkee xarit yi loolu mooy li nga xamante ne moom moo am ñuy joxe dig daje beneen jotaay jërë ngeen jëf <laughs>